course Yusuf Dabo ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar waaw ñu ngi am ben contentement taxaw ak yow parce que xam nañ sa liggéey bi ngay def bu rëy ci football Sénégal ñu am ci mbégte lool di la souhaiter tamit bonne chance ci ca carrière wu entraîneur di la wax rek tey jii nii euh, sa xarit euh, le grand course l'international Joseph Koto génn àdduna tey jii nii ban yëg-yëg nga am. waaw bon. Euh... nouvelle bu doy waar la nouvelle bu métti la surtout moment bima koy yek euh, fi ma fekk parce que qui euh, m'occupe ko wax sax euh, moment bima ma koy wax mun que ne ak xelam parce que nouvelle de dafa brusque dafa brusque man ci tali la ma fekk et j'étais obligé euh, garer pour l'air vraiment l'air leerlu information parce que Koto mom beaucoup ko comme le chaque jour bëñ yi ngay njëkk seen si c'est mom ñep nañ ko ko mu nekk ko xamante ni ku mënoon togn la ku mënoon togn la ku neexal euh, euh, humainement en tout cas nit le ko xamante ni wax dëgg yàlla man ko gis mu de ma ko xamee ba nii nii nii mer def na ni fi mu nekkoon en équipe nationale U20 man moom laa remplacé et aussi parce que ci yu yi wax euh, pour mu jox ma yenn tuyaux yi euh, mu nekkoon nit ku ñàkk ki ñaan koo xamante ni bëggoon na partage et euh, loolu je pense que ay valeurs la yoo xamante ni en tout cas sport daf koy véhiculer et même dans la vie dans la vie de tous les jours moom amoon na valeur yooyu bon Sénégal moo ñàkk tey jii du famille am kese ñoo ñàkk mais Sénégal moo ñàkk parce que nit la koo xamante ni da daan œuvrer tout le temps pour le bien du football sénégalais donc di ñaan rek yàlla atte ko siir ma dem waaw ñu ngi jégalu di ziar ñëpp di ñëwaat rek ci Mamadou Pierre Sy l'international ñu ngi lay ziar. ñoo ngi delloo ziar Asma Moul. waaw di la wax ni rek euh, tey jii ni sunu waa dem. Mhm. muy Joseph Koto. Mhm. ban sentiment nga am fi mu nekk. boo sentiment de tristesse. parce que Koto nit ku baax la. ku am yitte. foo ko fekk day ree rek. la veille avant muy gaañu waxtaan lu man ak moom waxtaan na lu man ay 15 minutes. ma koy laaj sunu carte internationale yi mooy wax naan demal le mais à cinq 17 heures laa yëg décès bi sama buntu ko doon ma fekk wax moo ko muy affaire bu moom bu metti parce que soo ku baax la ndax noonu ba dem yoon. yàlla xare ko àjjana. ay te di jaale monde sportif yëpp yëpp ma kenn jërëjëf. ñu ngi ziar ñu ngeeg euh, grand Goda xam naa ni ku ne international ne Goda parce que tey jii nii ñun ñëpp yaa ñu tette ñu ngi lay ziar. waaw merci As maa ngi lay ziar di kontaan ci yow di kontaan ci interview bi ngay def nii li nga wax dëgg la képp kuy joué équipe nationale jaar nga sama loxo 85 laa fi commencé photo équipe nationale ba fi ñu jol yàlla tey maa ngi sama appareil bi ma yor ni kon nga xam ne yàgg naa ci affaire yi waaw côté moom sama waay loon sama xarit loon fu ne ànd nañ fa ci àdduna Cabral bu ne def nañ ko maag moom waaw yàgg naa photo ay photo di ko jox joueurs yi mu yor photo naa leen presque ñëpp sumay waay la ñu Koto ak entraîneur équipe yëpp man samay gaañ la fu ne def naa ko def sept Cabral ak trois Coupe d'Afrique def naa ko waaw. waaw ñu ngi ziar rek maa ngi taxaw ak Issa Aidara ñu ngi lay ziar Issa. waaw as yàlla na nangu ziar. waaw di di la wax rek ni tey jii ne xam naa ni am na loo yëg Joseph Koto mi dem. waaw ben li ma yëg defe naa ne moom la moom nga yëg yow moom la ñeneen yi aussi yëg parce que voilà Joseph Koto mi dem euh, donc c'est c'est inexplicable.

Euh, est-ce que amul ennemi daal mooy nit ku baax la nit koo xam ne c'est un rassembleur et que vraiment euh, demam bi daal mun naa wax ne bett na ñëpp te moom laay doon wax ni léegi sama xarit yi ma ne na ah comme de c'était un bon dribbleur vraiment dribblé na ñëpp fi mu nekk ba ba euh, ba génn ko waaw ñu rek. waaw ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy ñaanal te def naa ne bés bu bés bi euh, bés mu mel nii euh, lii ci nekk rek mooy euh, sant daal sant sant am am yaakaar tamit aussi parce que wax ji yëpp benn la hmm, wax ji yëpp mooy ku baax la c'est un rassembleur et que voilà yéene na ñëpp daal jàmm te nit ku mel noonu ci jamono ñuy toll dafa xaw a jafe donc li mu def yëpp daal. Euh, nekki nañu daal nekki nañu bu rafet la bu mu génn àddina ñu ngi koy ñaanal jërëjëf jërëjëf sentiment bi nga am bis so Koto dem ni ah Koto c'était un ami parce que man ak moom effectivement en 79 ñu dama doon équipe nationale man ak moom ak euh, Jules Fofana Bokandé Boy Bandi euh, que Mamadou Niang Hercule bon nekk na nit koo xam ni fépp fu ma taxawoon même su ma amoon tolof tolof au niveau du club Aljana boobu ci teew Stade de Mbour

waaw jërëjëf jërëjëf waaw ñu ñëw rek. Hmm? ñu wax ci rek. Ah, même génération bi la waaw waaw mënoo bañ a sànni kàddu ci ci ci Joseph Koto mi génn waaw xanaa di wax rek ne beaucoup de tristesse parce que un homme très cher bàyyi nañu fi fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla teg loxo ci njaboot gi taas ñu ci barkeem c'est mais ñu xolu muñ parce que Koto bu ñu commencé tey bu ñuy wax du jeex donc mënuñ rek lu dul ñaanal ko quoi. waaw maa ngi ak Mor Diaw Manof ah tey bis bu tiis la de. ah waaw xam nga nag eh, li ñuy wax rek yàlla moom bu soxlaa képp ku bëgg da nga ñàkk bourse moom na ma la mën a xamal mooy xajoon na fi xajoon na fi ndax am na fi place du ñàkk faydaam du ñaawaayam du daraam mais yàlla moo toll noonu yàlla moom ñu baax ñi rek la soxla soxlawul ku ñuy laam-laamee nii la mel nii la mel wante foofu mu jógee yàlla na ko gënal fii mu jógee. foofu mu jëm noonu yàlla na ko gënal yàlla na ko gënal ñàkk nañu nit ñàkk nañu xarit ñàkk nañ koo xamante ni buy wax yow dafay sàmm wax ji ndax respect suy wax ak yow day sàmm wax ji ndax bañ la dépassé man bi ma ko xamee ba léegi ñuy bokk nekk équipe national fu ne dem nañ fa mosuma gis Butch ci beneen visage bu dul tey ma lii fo ak ree mais nag ci kaw jom ak fulla nit ku baax dem na as nit ku baax dem na waaw foofu mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jóge waaw man nag li ma ci gën a heurté mooy mardi la ma woo man ko may boy koto but loo may doyee aljol bàyyin yow ku la woo du la jot doo woo kenn tey nga xëy di ma woon ni 9 lan mooy lan la mun may déglu ma waay daa damay saaga donc nit ku baax ñu noonu tàggu na ñëpp nag waaw tàggu na ñëpp waaw non tàggu na ñëpp man ke mën naa la koon sama téléphone tàggu na ñëpp ñëpp la tàggu kon nag yàlla na yàlla yërëm ko te jéggal ko

Euh, ñoo daan bokk nekk équipe nationale bi mu nekkee entraîneur aussi bi ma nekkee entraîneur Jeanne aussi ma dem jëli ko ne ko kaay ñu entraîner ñu commencé jaar jaaraay boo xamee bu rafet donc tey jii su fekkee ne dafa génn àdduna as merci. <coughs> waaw maa ngi ak l'international euh, Pape Thiaw tey ji nekk ku nekkatoo ne Pape Thiaw tey jii nii xam naa ni moom tey métti na. waaw waaw métti na trop euh, sama grand sama lépp yow Mamadou Mamoun di wax ni Koto euh, sama grand la woon tey jii nii euh, bëgguma sa di conjuguer au passé parce que tellement que am na lu ñu vivre ensemble loo xam ne dama am jàngat gu bëree bëri bari bari bari si moom tey jii nii boo gisee bés bi nii lii lépp nekk fi si nit mooy wane ni rassembleur la woon koo xam ne yaatu na Euh, générosité moom ku koy wër ba yegsi si moom mun nga dëpp te xam ni yegsi nga tey jii nii bu may toog ba koroog ba ma toogee di waxtaan ak si Sikoto lu yàgg yàgg mu naan ma euh, mooy seul personne buy sourire plus que mois ma ne ko billaahi euh, liggéey naa ak moom pendant un mois je vois que ses dents et tamit da ngay sentir ni lu nekk si xolam mu nekk si kanamam. tey jii nii as je pense que moo dina jafe pour mu génn parce que Koto da doon koo xam ne lu ndaw lu ma ko xam rek dafa sori woon si man euh, lenn rek si des mooy di ko ñaanal yàlla atte ko si yërmandeem euh, di ko ñaanal tamit mu regretter lu mu doon euh, lu mu doon yàggee si àdduna bi fii nii yow tamit di la ñaanal yow as nga yàgg fi loolu te wër parce que yow leneen nga si man leneen nga te yaa ngi def liggéey bu.

ban jàngat nga jàngat ci moom si diir bu gàtt ngeen nekk. lan nga fa jàng ci moom. jàng naa fa lu lu bëree bari bari xam nga des fois comme on dit rek quand on a un bon maître on apprend très très vite. et Koto c'était tellement un bon maître que lu ma jàng as ah, est-ce que mën naa ko wax fii lépp gis naa muy def loo xam ne ñu bëri duñ ko def mooy bàyyi la nga nga liggéey bàyyi la nga liggéey bàyyi la ak lépp nga liggéey et loolu yombul si si métier bu ñu nekk di ko ci sant nag di ko gërëm.

waaw maa ngi lay fay maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax. Hmm. rek lay wax rek euh, xam naa ni euh, xool neexul moom tey. waaw tey moom xool neexul quoi parce que ki fi jóge moom dafa sori woon ci ñun trop trop muy Joseph Koto. waaw que ñu ngi koy jaale Sénégal yëpp parce que moom nitu Séné sénégalais la quoi booy xool dañu naan Sénégal moom laa wax Diène Faye sànq ko Joseph Koto li mu mérité ëpp na li sax mais fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge loolu lañ koy ñaanal quoi ku baax la woon nag man lu bax rek la xamul ci mom man tax ma naan wax xaritu le copain de Sadio Demba du jaar sax sama tour donc euh, il a œuvré pour le Sénégal xam nga ñu melni dañ leen wara vraiment li Sega Sakho doon wax rek malheureusement nek dé day bété té dégi sax daf ko bét mais vraiment li ñu mëna wax ci mom en tout cas ku baax la woon te sportif la woon amul xaar ma yalla kenn amul wa jaraf amul wa jia amul wa Stade Mbour amul kenn Joseph Koto dal sunu maas la woon ñoo fubalandoo mais vraiment euh, performance yi def au niveau de l'équipe nationale daal euh, yàlla ko yàlla fay xolom foofu muy tëdd quoi waaw. jërëjëf ñu ngi lay ziar. maa lay di la wax rek ni tey grand bi dem na grand coteau l'international. waaw loolu moom def naa ne képp ku xalaat coteau rek def naa ne di nga lu la metti parce que. dee bu bu ko bett la bu bett ñëpp tamit aussi parce que lu nit xalaatul woon la mais comme lu ñuy wax rek yàlla moom lu mu bëgg kenn mënu si dara mais dañ koy ñaanal d'abord yàlla xare ko àjjana mais mu nekk nit boo xam ne tamit nit boo xam ne même même baat la ñëpp koo wax mu ne la Koto nit ku baax la nit ku bëgg nit la nit ku wàccee boppam la surtout ba pare lu mu liggéey tamit Sénégal euh, ñëpp xam nañ ko parce que man mi de euh, de ma part man Koto am na mu def si man tey mun naa wax ne coupe bu ma njëkk jël si Sénégal ma nekk capitaine euh, Koto moo ma sélectionné woon moo nekkoon entraîneur bi muy tournoi IMOA bi te def naa ne loolu euh, lu baax la si man ba pare am na loo ne ñun ñu ngi ko doon séntuwaat si moom mooy que sur le carrière bu ñu nekk mooy entraîneur ñu doon jéem a jël lu bëri si moom tamit aussi te loolu yëpp ñu ko doon partagé ba semaine coupe du Sénégal bi lañ tok di si wax waaw ndekete lii la yàlla di def mais metti na ñëpp métti na ñëpp tey ku gis ne fii tey kenn xaju fii depuis bañ nekkee hôpital Fann ba fii nii def naa ne ñëpp ñëw wuy si tey def naa ne monde sportif ñàkk nañu ñàkk nañu ku am solo en référence tamit waaw mooy mooy li mooy wax rek as mooy nañ ko ñaanal yàlla xare ko na yàlla na suuf ooy si koom waaw parce que loolu rek laa mën a wax parce que am na loo xam ne doo mën a wax wax bu bari